الله من الشيطان وخد لي منافع الأوتان بعد الهزبلة وبعد البسملة وبعد الحمدلة وبعد الهوقلة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخير خديمه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من أحمد بن عثمان may ñëw di jàllale ay kàddu ay kàddu yi jéggulu yoo xamante ni bii dana koy jëmale ci cheikhu shuyuuxi alxalifa kilifa kilifa yi di ko jëmale ci Seydina Abbas ibnu ko jëmale ci Serigne Moustapha Hafsa wa Serigne Moustapha Saleh di ko jëmale ci kilifa yépp kilifa yi yépp ñu sant Mbàkke Busoog Siyeeg Ñasak Laayeg ñépp ndax itam nag jamono day toll foo xam ne nga mën a wax léegi sax waaye mënumaa ñàkk bañ wax euh, moom baa mënumaa ñàkk maanaam ji li nga xam ne moo nekk ci xol bi waaw ma xalaat loo ko xel mi wax loo ko làmmiñ wi ngir dettal ko ñiy déglu munta ñàkk mooy di jéggulu képp koo xamante ni bii kilifa ak nga di jéggulu képp koo xamante ni bii kilifa ak àdduna nga kilifay diina yi Cheikh Mouhamadul Mountakha moo nekk ci bopp bi kilifay àdduna bi rais Macky Sall moo nekk ci bopp bi may jéggulu xalifa bi ak ñi bokk ci diine lislaam ñépp di jéggulu président bi ak ñi bokk ci dawla bi yépp di jéggulu itam sunu mbokki chrétiens yi parce que sopp yi fépp lañ nekk damaa gis fan yi bi nga xamante ni bi mbir yi xew na ci xale yi ma gis li nit ñiy daj soppi yi ma kersawu ci lool moo tax mënu ñàkk ba ñuy jàllale lii di leen jéglu di jéglu ñëpp di xam leen ni rek xalaa kulli xaalin yàlla bi mu nu indee fii rek lanu ni kat wala nabluwannakum bi shay'in min al xawfi wal joom bu xiifi jotee wala bu ragal jotee maanaam lu nekk di xew ci ñun ni guddeeg bëccëg di xewe rek ni weer wi ak jant bi di génne rek te bokkuñu ak wutale gi nu yàlla wutale rek eh, ma bëggoon rek waa réew mi dalal seen xel moo xam kilifa yi moo xam ñi ñu yëlif moo xam kilifay diine yi moo xam kilifay adduna bi nañu dalal seen xel ci man ci sama jëmm ji ndax ku tedd ki daf maa waajal ba ma ne cocc fi mu nii lépp loo xam ne luy yëngalum réew la wala luy naqari xolu doomu aadama du jóge ci man mm-hmm. waaw du jóge ci man niyatan du jóge ci man xaw lan du jóge ci man fi'lan waaw duma ko yéene duma ko wax du ma ko def ama jëmmi nag samay ngaat ngaat ak ni may amusé wa ak ni may dundee ku tedd ki loolu boo xoolee forme bi mën na laa nax loolu it bëgg naa nit ñi xam ko li ñuy tuddee sécurité itam bu dee man sama jëmmi bopp ji wax dëgg yàlla nii dafa may doy nii daf may doy najjaani daf may doy ndax ida qatattu tazza arshullahi wa sabahat malaikul ilahi mbindum ku tedd ki benn xaraf ke buy bind maanaam aras di yëngutu malayka yi di sabal loolu xajul ci dara moo tax kay man xanaa bu ma bëggee lu ma aar foofu laay koy wut maanaam mbir yi sécurité yooyu xañ na yu xew la ci jamono la rek waaw loolu dinaa ci ñëw duma ci sori ndax euh, balaa yàgg war na maa wax wax ju leer ju yaatu waaw wax historique gu diwaanu Silkul Jawahir fi axbaari saraayir yëpp waaye lii daa mënta ñàkk balu àq ñëpp nag ak di sant ñëpp itam ci cofeel gi ñu may woon ak yëg yëpp waaw Cheikh Bassirou Abdou Khadir moom dama koy waaw beralug cant ndax itam wax dëgg yàlla dëgg la ñëpp ngi wane yëg ak cofeel waaye moom daf cee xaabaabal moo tax ñu ngi koy sant te di ko bàyyi ak ba ci njiitul réew mi wan na ma wan wan am na lu ma ci wan loo xamante ni bii ci sama diggante ak moom te état état la bu liggéeyam jotee <laughs> moo xam waaw moo xam moo xam nañu koy doxalee ak seeni directive bu ñu ko joxee ak ñu ñu koy digal ñu koy defee nañu koy defee naka jekk loolu moom ci état yëpp la waaye yooyu lépp daa jotewut ak li may wax dara man daal fi ñu toll nii sama njaboot euh, ñi nga xamante ne bii ku ci à partir de maintenant ku ci xamante ne bi da bëgg a taxawal cellule de sécurité wala dara ah nga dem ci loi bi dem ca intérieur waaw dem ca intérieur bi ñu la autorisé pour nga taxawal ko ndax gis nañu société privée yi di am ay sécurité ak ay yu demee noonu waaye man yooyu yëpp sax man dama cee nekkul. waaw man yooyu yëpp dama cee nekkul wax dëgg yàlla bañ naa ko ba damaa tëj sama bopp kaso ay ate ate at di bind ci ku tedd ki looloo ma ñor waaw loolu lay dund itam bëgg gi ma bëgg a dugg kaso nag kooku ci xol bi la sama diggante ku tedd ki la loolu moom ça n'a rien à voir du damay jóg di tooñ pour duggi fa wala demee noonu déedéet loolu moom noonu lañ ma mooñaalee ndax ku tedd ki moom moom féete ma fépp nekk sama kaw féete ma kaw féete ma suuf féete ma biir ak biti ak ndeyjoor ak càmmoñ waaw ba ñàkk ba ni may ñaane mooy noo ngeete nii di la bàyyi suñu bopp ak sunu lépp ak sunu ñëpp waaw kii kay kon maanaam wutuma fenn lenn damay maslaaka kii rek diplomatie ak yore samay façon rek geetaru gi nag moom faw ma koy def ndax ak soldat ci boppam moom maanaam dafa dafa nekk ci sama xol toujours damay faral di wax ni discipline militaire moom moom lañ fi war a instauré ak yu demee noonu maanaam ma bëgg rek Sénégal yi xam ni moom gis ngeen nag ku tedd kii ni ma ak it ni mu def ci ndaw ñi nga xam ne dañoo féete ak man nga xam ni seen xel xalaatul nekk di bokk ci ñuy sànni xeer ak ki ay deret ñoom jërëjëf sëriñ tuuba waaw moo nekk ci ñoom loolu itam wax dëgg yàlla ak cant la moo tax si ku tedd ki xamuñu nun koy sante bu ko defee loolu na ko waa mi xam bu soobee yàlla balaa yàgg balaa at may jeex war na maa def sortie médiatique boo xamante ni bii dinaa gën a yaatal leeral sama njaboot njaboot génn ñu fonk ndax lu weex lu weex àjjana lu weex lañ fay sol kenn du fa sol couleur yi ay noo de fii la xewee waaye àjjana moom lu weex rek lañ fay sol kon nañu xewal nañ dellu cosaan ci jamono yi sëñ Modou Moustapha dem ci dellu ci perkaal waaw ba noppi nag waaye du tee nag faw ngeen ciy boole costume yi ndax costume <laughs> mooy temporel bi faw ngeen ciy boole kii nañu nañu yiw rek waaw nañu yiw ak a sell rek man nag faw may geetaru waaw ndax dafa am lu may incarné loolu moo tax waaw waaye gertaruloo ma kenn solootuma kenn tenue bu ñu naan kii sécurité la wala yu noonu man kenn mënu maa sécuriser ku dul ki ma moom waaw def ci man li ma ci fexe ba maanaam dara ñoruma lu moom ak yëfam ak i xasayitam waaw loolu daal ak waa réew mi yépp ak ñëpp tey kii nag gën a ñaax xale yi leen xiital ci ku tedd ki waaw ku tedd ki nag moom dara am njàng leen moom imaanan wa islaaman wa nu weesuwul di yéene lu baax di ko wax di ko def wasalaam